amis auditeurs de la rajo Rewmi FM merci comme ni ngeen ko xamee chaque samedi dañ fiy toog ak kenn koo xamante ni mu ngi ci bis bi benn star tey nag ñu ngi fii ci RTS seet si DJ Prince monsieur Aline Wade tey nag moom lañu ñu nar a waxtaanal ci bile émission donc euh, tonton ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax tam ci dalal gi. maa ngi lay fay euh, maa ngi lay nuyu tamit di nuyu képp koo xamee ni yaa ngi ñuy ci fréquence su réew mi. internet yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu également les followers maa ngi nuyu euh, suñu président directeur général muy Mbagnick Diop maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu directeur général muy Moustapha. maa ngi nuyu réew mi maa ngi leen di wax ni maa leen di jox seen wàccuwaay maa ngi leen di jox respect ah maximum de respect. Mhm. jërëjëf kon de passage ñuy faire un coucou aux internautes de la chaîne Rewmi TV alors euh, tonton Aliou ñu gën la xam ci Dj Prince tur boobu fan la jógee. alors euh, Dj prince xam nga euh, ku nekk nekk nga xale. même ñi ngay gis ñu réew mi ci ak fu ñu mënti nekk. dañu mës a nekk xale. donc man mu ngi jóge ci suma benn xarit boo xamee nii euh, bu ma mësaan daje ak man. daf may wax mon prince. donc man ku ma xam rek xam na. Euh, mon prince xam na par exemple mon prince ku ma xam rek xam na mon prince. Mhm. donc ci mon boobu. la ma daan tooñ di ma wooyee mon prince mon prince mon prince ba mon prince lan donc mi ngi jóge daal ci suma benn xarit boo xamee nii léegi borom kër la mi ngi yore këram man it maa ngi yor suma kër donc foofu la mon prince jógee donc euh, tour xale la boo xamee nii on était tous euh, des collégiens sax laay wax donc euh, foofu la tour bi jógee mhm. waaw d' accord lu tax mu la doon wooye moom prince vous étiez beau euh, ou bien lan la xooloon ci yow ba gis ko di la woowee lu mel noona alors lu tax mu ma doon woowee moom prince euh, parce que déjà euh, dañu on était très liés man ak moom. Mhm. bon ba pare gisoon na ni dama dama bëggoon tamit lu xaw a clean xam nga bëgg toppatoo suma bopp. bëgg waaw donc bëgg loolu. Mhm. ci foofu la doon jaar di ma wooyee prince bu Tourbilane mm-hmm. mais boobu ay xale la ñu woon quoi xam nga euh, ku nekk nekk na xale comme li ma wax donc foofu daal euh, la jaar ba yegg si fii ba Tourbilaw tamit quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. d' accord jeune génération yi sama genre ki dañu màggaleeg yow daan la suivre ci médiam bu mel ni RTS est ce que tey jii euh, bu ma la doon laaj ci sa début di ñu ci mën a yaatalal lu bëri. merci alors suma début. man euh, dama nekkoon ci benn quartier boo xam ni c'est un quartier populaire. Mm-hmm. quartier bi mu ngi tudd Géejawaay. Mm-hmm. alors Géejawaay euh, jamono boobu dafa amoon euh, li ñuy wax ay fuural ak ay xumbal xëy na yow doo xam loolu mais ñi ñuy suivre dinañu xam li may wax lan la. Mm-hmm. alors ci fuural yooyu ak xumbal yooyu dañ ci doon. Euh, après les rencontres match yi nga xamee ni suñu équipe nawetaan ASC Deggo bi nekk HLM Guédiawaye bu ñu joué ba pare suñu gagné. Mm-hmm. maintenant pour delloo njukkal rendre hommage yi nga xamee ni ñoom ñooy les joueurs. Mm-hmm. ngoon gi bu jotee après victoire bi dañuy dem ci koñ bi def ay xuur fuural ak xumbal. Mm-hmm. alors à partir de ces fuural ak xumbal man ci laa doon jaar di animer. may animé di animé di animé ba benn moment. daa yoroon chaîne à musique. non yoroon chaîne à musique mais dafa am kenn ku yore woon chaîne à musique. Mhm. ak ku mës yore chaîne à musique rek. Euh, boo amee spectacle da ngay wax dem leen jëli prince. Mhm. j'étais le MC quoi alors euh, ay bi bi mu demee ba nga xam ni nag euh, am na benn président boo xam ni c'est un gérant de boîte de nuit président boobu. nekk suñu président ASC muy ASC Deggo ñu jox ko boîte de nuit bi mooy boîte de nuit bii ngay dégg bu tudd Matisson mm-hmm. te euh, coowal nong nang ndengaleer bii ngay dégg ak Babacar Ngom papaam moom moomoon boîte de nuit boobu mm-hmm. papa yi Babacar Ngom moom moomoon boîte de nuit boobu alors boîte de nuit boobu man maa doon animateur bi ASC bi moom mu fa yóbbu woon mm-hmm. ensuite maintenant ma dem ba jël goût am benn marque cigarette bu ma découvrir foofu ci boîte de nuit boobu yóbbu euh, mm-hmm. ma ci CICES foire ma presté foire donc euh, commencé nag di xam yoon wi quoi tuuti tuuti ba bi may ñëwee ci média yi donc euh, jaar ci média yi Euh, ba yegg si fii ñu yegg par la grâce de Dieu. Mhm. wàllum animation. Euh, buñ la déggee dafa mel ni sur le temps nga ko jàngee parce que ne nga ci wàllum fuural wàllum xumbal mais est-ce que vous aviez pensé à vous professionaliser sur euh, le domaine. ah oui bien sûr parce que euh, euh, les premiers journalistes sax yi nga xamee ni dañu nekk ay journalistes ñu leen di woowee ay journalistes ñu ci gën a bare ay enseignants la ñu woon mhm. amul école buy former un animateur au Sénégal mm. donc forcément foofu rek nga mën a jógee pour nekk un animateur ñi fi nekkoon les Papa Maguette Wade les feu Moïse Ambroise Gomis les Francis Cheikhna Ba dégguma benn école bu ñu jànge mm-hmm. donc dañu jànge ci ñun fi ñu jàngee moo mi ngi dépendre xam nga même woykat yi euh, ñu ci gën a bare euh, forme bi ñu jàngee la ñu jàngee parce que boo demee ci sunu dafa la wax dama daan kasag nga dem ci Omar Pène mun la dama daan kasag nga dem ci Dongolo mu ni dama daan simb nga dem ci keneen ak keneen ak keneen euh, euh, école boobu nga xamee ni mooy école entre guillemets euh, traditionnelle boobu mm-hmm. donc moom la ñu ñu tatalee moom la ñu jàngalee ba ñu ñëw maintenant boo ñëwee parce que man bi ma nekkee ci milieu boobu ensuite dañ ma recruter rajo bi ñu ma recruter rajo duniya dañ may formater. donc euh, damay amaat beneen gis-gis par rapport à la communication damay amaat beneen gis-gis par rapport au métier. parce que dama fay fekk ay nit yu jóge école. di xool ni ñuy defee bi ngi mel na tey euh, nga nekkoon dans l'informel ñu dugal la ci lu ci lu formel. Euh, obligatoirement bu fekkee da nga bëgg a def carrière da ngay xam ni lii ci la bokk déontologie bi lii la laaj éthique. lii la su ko defee nga rallier boole ñoom ñëpp pour mu def la que tu sois professionnel. Mm-hmm. donc euh, xaw ma tey wala démb wala bër ci démb mais ñun euh, jaaruñu ci école euh, bu ñu jàngal comme ñu nekk ay professionnels ou animateurs yu demee noonu maintenant boo duggee nag ci média bi. Mm-hmm. ci ngay maintenant nag defar sa bopp te entourage defar la. Euh, ñi nga fay fekk ñu defar la ba il faut ñu def ci yow nga nekk un professionnel. Mhm. d' accord mais est ce que ñu ci yàgg comme yéen waruloon waruñu mun a penser à fonde loo xamante ni c' est beaucoup plus formel une école par exemple pour di fa former ay jeunes yoo xamante ni ils sont attirés par le métier. waaw xam nga adduna euh, euh, moom question boobu dañ ma koy laajaat lu bare quoi dañ may laaj pourquoi du ngeen dem former xale yi ñu dem jàngi. ña nekk ay professionnel mais euh, mën na nekk mais dama lay wax ni la adduna euh, loo gis moyen def ci am solo mm-hmm. et puis bu fekkee également animateur euh, professionnel yi nga xam ne ñu ngi liggéey ñu ngi nekk ci benn occupation day du yomb trop pour ñu mën a jóg rek ubbi école parce que ñoom seen bopp sax amuñu seen temps bopp parce que ñu ngi xëy di liggéey ay nit la ñu yoo xam ni ba léegi ils sont en activité. peut-être nit mën na ubbi école comme école yi may gis fii dem contacter des animateurs waxuma contacter Prince mais mën na contacter beneen animateurs animateur boobu commencé di joxe ay cours ci école boobu wala euh, école yi ñuy jàngalee journalisme parce que da ngay gis par exemple CESTI euh, moo fi nekk école boo xam ne ñuy jàngalee carrément cent pour mais yeneen école yëpp am na yeneen programme yu ci nekk en plus maintenant de euh, du journalisme donc école mënoon nañu initier ay projets yoo xam ne ay programmes yoo xam ne ni dañuy jàngal les jeunes yi bëgg nekk mm. des animateurs mais ñu borom école yi ne ñu ñëw rabattre dem seeti ñi nga xam ne ni c'est des professionnels ñu ngi ci médias yi nit ñi xam nañ leen ñu consulter leen échanger ak ñoom permettre leen ñu mën a dispenser des cours de de présentation des cours d'animation des cours d'animateurs dans les dans les radios quoi donc euh, ou bien des les télévisions donc mën nañ ko def certes parce que suñu métier la yàgg nañ ci am nañ ci expérience mais il va falloir du temps parce que euh, et des moyens. et aussi. Mm-hmm. alors euh, premier médium bi nga fréquenté kon moo kon mooy Dunia. sa passage euh, ci ci ci rajo boobu mm-hmm. lan la def ci sa carrière lan nga ci fàttaliku loo xamante ni sa t'a beaucoup marqué. Mm-hmm. li mu njëkk def ci sama carrière daf ma rééduqué. man bi ma ñëwee nekk ci média yi. ci laa commencé di comprendre ndekete am na lu ma war a wax ak lu ma warut a wax bi may nekk ci xumbal yi di yëngatu di dem di dellusi si euh, lu ne laa doon wax ci biti mais bi ma demee ba ci médium boobu ñëw ba toog commencé di wax ma ni naam ñeneen nekk toog di ñu déglu di teewlu di ñu déglu ci la comprendre nekkete c'était une mission quoi comme les autres comme comme autres yi i fale nga xam li ngay wax lan la il fallait nga xam ni balaa ngay wax nga comprendre li ngay wax ki koy déglu moom it am na façon bu mu koy déggee i fale nga comprendre que ni li ngay wax ça ne pas dire que yow yaa gën a xam li ngay wax ñi lay déglu i fallait nga comprendre également que ni euh, médium bi walla métier bi boo ci nekkee da ngay sóoraale toujours que ni li ngay wax bu xasee ba génn mënutuloo ko rattraper. Mm-hmm. le comptable mën na erreur ci chiffre mu effacé. la presse écrite mën na juum ci bind mu effacé jël gomme bind. mais celui qui parle bu xasee ba wax rek bal dem na. Mm-hmm. loolu nag il faut beaucoup de pour nga mën a def carrière bu mel noonu. donc moi j'ai sama bopp. Mm-hmm. Euh, gën a xam que ni ndekte ñu ñuy déglu ils de la valeur et valeur boobu da leen di war a jox chaque jour. Mm-hmm. moi j'ai toujours respecté. Mm-hmm. les auditeurs. les téléspectateurs. parce que euh, sans ñoom ñun duñu nekk. Mm-hmm. mais génération bi wala des fois damay gis ñoom ils pensent que ñoom ñoo tax nit ñi déglu. alors que c'est c'est c'est c'est diamétralement euh, faux le le le le le téléspectateur ou l'auditeur c'est quelqu'un boo xamee ni dafay seet boppam ci yow. Mm-hmm. bu ko gisul quelle que soit sa audience daf lay lâcher un jour moo tax ngay gis les gens brillent une nuit et disparaître le lendemain parce que lien bi leen di lié ak téléspectateur bi wala auditeur bi dañ koy fàtte. Mhm. waaw d'accord mhm. de la radio à la télé. Mhm. comment s'est faite la transition c'était facile. c'était c'était c'était pas difficile parce que moi jusqu'à présent je suis radio à 100 pour parce que nit ñi ñu ma xàmmee télé yi. mais quand on parle de audio et visuel ça veut dire que ni c'est deux choses yoo xamee ni benn mënul dem bàyyi boroomam donc euh, man bi may nekk rajo dama ko def comme ni ma ko war a defee avec beaucoup de respect ci la ma benn directeur des programmes télévision gis mu ne ma mais sama rak man dama la gis nga def benn jeu concours ci télévision bi mais ñu ngi lay wër ci réew mi mais xamuma fu ñu lay fekk kaay nga def télévision. boobu yaa ngi Dunia. boobu maa ngi Dunia et puis sax booba maa nga Thiès dañ ma affecté woon comme chef de station parce que man biñ ma affecté bi ma ñëwee rajo Dunia j'ai fait quelques années après ñu dénk ma une rajo à Kaolack dénkaat ma une rajo à Thiès. Mm-hmm. donc mais dama doon jóge dans les régions di ñëw di def des émissions commerciales pour des structures yoo xam ni fii la ñu nekk di jaay dara. ñoom ci lañ ma doon gis parce que émission yooyu dafa daan jaar ci la chaîne de la RTS. Mm-hmm. il était directeur de programme donc forcément day gis lépp luy jaar ci chaîne am. Mm-hmm. bu mu mësaan a gis may jaar ci chaîne am day wax ni le gosse là je voudrais le rencontrer ba un jour bi ma rencontrer mm-hmm. mu ni ma on cherche mais taxul ma ñëw. lu tax taxul nga ñëw da leen doon jaay cher wala te siiwulee. parce que. mokkalaguma woon. naa doon jàngaat. ndax ah, dama doon jàngaat boobu mokkalaguma boobu j'avais pas confiance en moi. pas cher parce que. xam naa ni fu Moïse Ambroise Gomis toog ba jóg. Mhm. Maguette Wade du toog fa ba jóg. keneen ku fa war a toogaat da ngay jël allure da ngay jël élan li naan da ngay ñaan élan donc euh, pare ma woon. pareegu woon mhm. tonton bëgg naa nga ñëwaat tam tuuti ci sa. ci wàllum animation parce que bu ñu lay xool on on voit une personne plutôt timide léegi comment vous faisiez pour euh, égayer donc et faire plaisir aux auditeurs. Mm-hmm. parce que euh, euh, faire plaisir aux auditeurs et aux téléspectateurs c'était le contenu. Mm-hmm. xam nga nit ñi souvent dañuy jaawale un présentateur ak un contenu. Mm-hmm. tu sais quand tu as un bon contenu. les téléspectateurs mën nañ la suivre mën nañu ànd ak yow mën nañu adhérer ci sa concept parce que c'est le contenu moom moo am solo mm-hmm. un jour je suis venu voir Mamadou baal ma ne ko mais directeur il était directeur de la télé mu ne ko mais directeur man daal gars yi damay bàyyi télé quoi parce que gars yi dañ may wax ni ma tu es très calme quoi Prince donc yaru bu mu ëpp quoi mm-hmm. damay bàyyi quoi mun ma est-ce qu'ils t'ont dit que ils t'ont dit que ni xamuloo dara ma ni non non duñ ma wax loolu dañu ma dama calme quoi. Mm-hmm. mu ne ma posé ma ne ko oui on me dit que je suis très mm-hmm. mun ma fait de sorte que les quinze millions d'habitants yi ñu am ñu adapté wu à ton style que moo gën yow ngay adapté wu ci style chaque habitant mm-hmm. sénégalais. xamu nga ndax dégg nga baax li ma wax. la preuve tey beaucoup d'animateurs dañuy def comme man li ma doon def léegi calme joxe euh, rendre affaire bi ni ñu ko waree. ce que c'est facile. tu sais à la base tous les métiers yooyu def ci adduna mhm. sa éducation def ciy feeñ. même un président de la république. Mhm. éducation day day déteindre day feeñ moom ci li nga xamee ni moom lay def. man euh, je suis éduqué dans une famille maraboutique. donc am na nu ñuy yare am na nu ñuy xoolloo am na nu ñuy defloo defin boobu ak xool boobu ak yarin boobu dafay déteindre ba ci sumay relation ñu may jëflante ak nit yi donc mënu moon tricher c'était moi mm-hmm. parce que y des animateurs yoo xam ne ñu nekkoon ci kaw scène bi doon fecc di tëb il le faisait très bien mais c'était pas mon style c'était pas moi mm-hmm. moi il fallait adopter un style indi leneen loo xam ne ni peut-être au début day am ñu la critiquer mais à la fin dañuy adapter dañuy accepter. Mm-hmm. bon par la grâce de Dieu seetaan nga ma seetaan nga ma keneen seetaan parce que j'ai jamais changé mon style. Mm-hmm. comprendre la preuve. tey télévision boo gis gars yi ñu ngi toog normal di waxtaan ak seen i invités nit ñi di wax parce que le spectacle l'animateur pour donner le spectacle mais ses invités sont venus également pour faire le spectacle. Mm-hmm. d'accord mais est-ce que en homme et conscience mosuloo bëgg changer de style parce que vous étiez peut-être victime de critiques ñu ngi naan kii ba il est posé il est trop calme comme animateur à un moment donné de votre vie mosuloo bëgg changer de style non pourquoi changer de style c'est moi mm-hmm. loolu man la woon man la c'est moi c'est c'est c'est c'est c'est DJ Prince c'était pas euh, keneen wala keneen c'est Prince. on ne te trouvait pas un peu mou. non non xam nga calme moi j'étais très calme. Euh, mais calme ça veut pas dire que ni mu euh, mu mooy ku tooy bon man tooyuma donc euh, man euh, xam naa ni réew mi di doxe xam naa ni muy doxee loin de là mais c'était par rapport à un respect à un médium surtout d'État alors je lâche le mot j'étais ci benn médium boo xam ni médium d'État la xale laa beaucoup de de de de de de de responsabilité yoo xam ni dafa waroon no tegu sama kaw. Mm-hmm. des fois quand le président de la république bu defee par exemple euh, bu génnee pour euh, def son discours moo xam euh, tabaski wala mu def ko 31 décembre. ensuite c'est moi qui viens. donc il fallait benn tenue d'antenne. il me fallait ça. moo tax man la bi ma duggee si média yi dama yaraat sama bopp. mais quand tu me vois sur un concert tu m'as certainement vu sur les concerts Idoul Diak, machallah. Mm -hmm. Le, mhm. en tout cas, je, ne dis pas que ni les plus grands concerts qui décrivent, mais ça me l'a Petit festival mondial des arts nègres, j'avais un plateau à moi, mm -hmm. euh, tout le mois ou les 21 jours, de 19h à 3h du matin, à la place de l'obélisque. Mhm. C'était pas celui que tu voyais à l'antenne, parce que c'est différent. c'est différent mm-hmm. mais dama nekk ci médium d'état am par exemple kilifa yoo xam ni dañ may seetaan donc am naa benn comportement boo xamee ni moom laa waroon na adapté pour mën a euh, euh, ñu accepté ma la preuve mm-hmm. euh, mës naa dem ci këru benn xalifa ci réew mi mais bi ñu ñëwee ñu ñaanal ñu ñaanal ñu mais bi ma joxee sama loxo xalifa bi ba jóg dafa ki bëkk néeg bi dafa ki nekk xalifa bi dafa jógaat ah. mhm. dee xalifa bi xalifa bi woowaat mooma ñëw donc ça veut dire que ni loolu xamuma suma gis mais moom comportement à l'antenne moo ma ko may mhm. kilifa yi nekk ci réew mi buñ ma soxloo dañ may woo ma ñëw te ni ñuy waxeek man ni ñuy jokk ak jàkkal ni ñuy ni ñuy defeek man sa veut dire que ni li ma jox moom lañ may delloo le respect que je donne à l'antenne c'est le respect ñoom moom lañ rendu boobu moom lañ may jox mm-hmm. et loolu feccuma tëgguma defuma dara je je fais mon plateau comme il se doit avec tout le respect yu ma yoo xam ne dama ko am sama diggante ak les téléspectateurs et loolu la xam ça n'a jamais il m'est jamais venu à l'esprit que ma changer dara ci li may def d'accord alors est-ce que liggéeyee ci média d'État c'est pas un peu difficile? Est-ce que des fois on n'est pas tenté de chercher les mots, de revoir son comportement et son attitude? Des fois tu tu te sens pas que tu as les mains liées et que tu dois contrôler tout, tout ce que tu dis. Est-ce que c'est pas difficile aussi? Non, ça ne veut pas dire contrôler. On ne contrôle pas ce qu'on dit. Euh, on respecte minuit sept ans. Et quand tu respectes une personne, mm-hmm. xam mm nga -hmm. comment se comporter devant cette personne. c'est juste parce que c'est un média boo xam ne je te dire am naa benn réalisateur bu max Mahfous xam na ma quand on fait des émissions il me dit que xam nañ la euh, des fois da ngay jóg mais boo jógee foo jóg dama koy dagg donc téléspectateurs yi mën nañu gis rendu bi rek la ñuy gis mais mën na am j'ai fait mon show wala kërëb kërëb mais euh, euh, bu ñu demee ci au montage du ñuy wax post prod dañuy sisoté mm-hmm. mën na nekk travailler ci média d'état parce que rajo réew mi la ak télé réew mi la mm-hmm. am nga un comportement boo xamee ni moom nga fa moom nga fa war a am ci comportement mm-hmm. parce que bu ñu la jëlee événement lu mu gën a mag ñun la yow yaay présenté bi événement c'est parce que xam nañ ni am nga un comportement boo xamee ni mën na dugg dans tous les foyers à n'importe quelle heure te du leen déranger moo tax moi je pense que ni sénégalais bu ñu may seetaan yaay papa doom sëriñ maître président ñëpp dinañu toog di seetaane parce que avant tout man respect boobu laa leen di jox xam naa ni moom lañ may delloo mm-hmm. nekkuma woon en compétition ak kenn pour mën a changer wala def lii ci média d'état laa nekk boo xamee ni déjà je respecte le support bi ma nekk ba pare xam également support boobu lan lay peser ci réew mi donc comportement bi ma war a mën a am rek mooy un comportement boo xamee ni ñi yor média boobu ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo ŋànk média boobu ak régime bi nga xam ne ñoom ñooy yor média boobu gis ni kat maa ngi jéem indi suma kenn kàttan ci li nga xamee ni moom la média boobu laaj. Mm-hmm. bi ñu juddoo ba léegi RTS rek lañ la xamee. Mm-hmm. une euh, grande fidélité. Mm-hmm. tey jii est-ce qu'on peut s'attendre jour nga jóge fa ak mercato bi nu mu bëree nii ba tey nga toog RTS ko ben parce que mës naa wax ci interview par exemple télé bu ma soxla. Mhm. pour ma dem foofu. bu fekkee directeur bi bëggul ma toog place am bu mu ma woo. ah oui waaw pourquoi. parce que <laughs> loolu laa bëgg lii foofu laa bëgg a toog. Mhm. xam nga mercato yi ñii dañ leen di jël pour ñu nekk animateur wala ñu nekk loolu bu dee animateur laa bëgg nekk ils n'ont qu'à me laisser ici. mais bu fekkee dañ may jox ay responsabilité jox ma pour ma diriger seen chaîne. wala seen rajo. donc euh, mën naa ñëw mën nañu waxtaan mais que pour ma dekk animateur dem nekki animateur foofu. mais Youssou Diop bu ma soxla. daf may wutal euh, euh, direction bu baax jox ma ni mën naa ànd liggéey at ñi ñu ànd ñu ñëpp ñu conjuguer suñu ay force and strong we gonna win. Mm-hmm. d'accord tey jii ñaata at. Mhm. nga def RTS. Euh, plusieurs années bari na. ans. non 40 <laughs> ans bari na <laughs> non non mais non 40 ans c'est non non yàgg naa. Euh, plus mhm. Mhm. ñu bari itam euh, di wax ni danga nga am lien de parenté ak suñu maam Maguette Wade c'est vrai. suma su nijaay la. et puis c'est mon père spirituel Maguette il nous a inspiré ñun ñëpp quoi c'est c'est notre mentor c'est quelqu'un boo xamee ni euh, on s'est inspiré ci ci moom Maguette euh, mës nañu mës nañuy toog di waxtaan man ak moom ma ne ko dinañ la immortaliser donc parce que Maguette a beaucoup fait dans ce pays donc euh, même sur le plan euh, en matière de télévision ak divertissement yi nga xam ne moom la ñuy def Maguette Wade a beaucoup fait donc euh, suma c'est mon père spirituel c'est mon mentor. Mhm. Mm-hmm. Très bien. Alors, à mes auditeurs et chers internautes, je rappelle que nous sommes avec DJ Prince, tonton Aliou Wade. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre les gens dire rien tous les soirs pour euh, donc critiquer les programmes de la RTS? Bon, rien tous les soirs, c'est juste un jeu de mots, hein. C'est comme par exemple mënoon naa jël Réewmi Euh, di ko di ko di ko déchiffrer E bi R bi E bi M bi euh, ba mu jeex ak yooyu créer ci benn affaire boo xam ne loolu Euh, c'est pas un système nit moo koy wax. est-ce à dire que les gens ne sont pas satisfaits de li nga xamante ni média public bi tamit moom la leen di proposer comme euh, programme. bon est-ce que yow xam nga programme mu euh, RTS. franchement non. ah donc xam nga tamit dama mës a seetaan dama mës a def benn émission. Mhm. benn waaye mu ma non mais Prince waa ji kërëb kërëb affaire yu demee noonu am benn réalisateur bu tourné ma laaj ko na émission bi <laughs> mu ni ma non non seetaanu ma ko mais xam nga kërëb kërëb. parce que tamit pour juger un programme il faut suivre les programmes bul dugg ci loolu parce que euh, laaj naa la léegi en tant que professionnel tu viens m'interviewer di ma laaj ndax euh, parce que amuñu programme te yow nee nga doo ko seetaan mm-hmm. parce que pour parler un pour pour pour euh, pour diriger un peuple il faut parler sa langue mm-hmm. pour nga mën a échanger ci benn affaire foog nga xam programme mu RTS mais yow xamuloo programme mu RTS donc euh, euh, pour ñu discuter ci day jafe mais du système nit mooy bind rien tous les soirs wala mu bind rassurant tous les soirs. vous préférez lequel dama xaw ma sax dama dama dama dama xool nii rek quoi dama dafa dafa ñëw nii air laa gis nii rek ma ma traduire sa rien ak sa rassurant donc c'est pour te dire que nii ah comme mënoon naa wax tamit rose comme mënoon naa wax tamit euh, rouge comme mënoon naa wax tamit euh, rayonnant ou rayonnante xam nga ça dépend xam nga les jeux de mots euh, c'est, c'est le sénégalais ah, de mots la quoi c'est le parce que euh, nee naa la génne naa ci ay ay affaires yu bare mënoon naa ci génne tamit Rama mhm. tuuti ak Suzanne Donc, euh, pour dire que moi je pense que ni le débat c'est pas ça parce que c'est un médium national. Mm-hmm. ñu ñëpp ñoo ko bokk. le débat c'est encourager ou bien euh, faire de sorte que euh, les Sénégalais euh, mm-hmm. gën a bàyyi xel ci média d'état bi parce que mm-hmm. biñ ko commencé dégg mooy bi amee ay yeneen structures yu am mais jàpp leen ni ñëpp ko bokk. c'est un média boo xamee ni ñépp ñoo ko bokk donc euh, que mu am dara tous les soirs que mu ñàkk am dara tous les soirs moi je pense que c'est sénégalais c'est le c'est le même hymne c'est le même drapeau ce sont les mêmes couleurs de de drapeau avec cette étoile au milieu mm -hmm. moi je pense que ni soyons fiers de notre Sénégal mm-hmm. parce que mi ngi noonu. alors mais tonton Prince est-ce que jàppoon itam audimat bi. Mm-hmm. au niveau de l'audimat wàññeeku na bu baax est-ce que mm-hmm. nit ñi léegi préféré wuñ mm-hmm. di xool programme euh, chaîne privée yi sincèrement. alors parce que euh, xawma qu'est-ce qui te fait dire également que ni audimat bi hmm, tu parles d'audience. oui. alors parce que xawma ndax chez vous da ngeen am unité unité de mesure d'audience pour balaa ngay ñëw nga xam kan kan mu nekk parce que bu fekkoon par exemple da nga ma génneel benn euh, instrument nga ne ma prince xoolal baromètre bi mu ngi nii unité de mesure baa ngi nii mais ñëwuloo ak loolu da nga wax nii rek. parce que am ay sondage yu génn peut-être euh, xëy na yaa ngi koy jàppale ci question mais dama defoon yoon. Euh, même wax nga loolu mais ban la ci ban sondage par exemple tu me dis loolu parce que journaliste nga tu es censé connaître donc sondage bi bi mu génnee temps bi mu def beneen sondage mënoon na ci ñëwaat parce que sondage yi dañuy varier dañuy dañuy nekk tey kii mu nekk mais je pense que ni c'est pas une question de sondage ou d'audience c'est une question de ku ci nekk mottali sa moroom li muy def parce que le sénégalais bi ma gis léegi muy seetaan télé di déglu rajo di suivre internet mooy propre directeur de programme am tu sais on on va vers un style boo xamee nii mm-hmm. il y plus de directeur de programme sur les chaînes de télé ou de radio ou quelque chose comme ça ah oui c'est la c'est c'est la bonne femme qui est à la maison c'est elle qui va être directrice su programme am parce que télé télé télécommande am la yor ci loxo programme bu ko neex lay sélectionné su ko defee huit heures kii laay seetaan vingt heures kii lay seetaan euh, novelas laay seetaan kële laay seetaan kële laay seetaan ba ñoom ñëpp ñu regroupé wu mu elle en fait un programme à elle. Mm-hmm. donc sénégalais yi nañu bàyyi xel te léegi ñi yor programme yi ci biir kër gi la ñu nekk. télé yëpp la ñëpp di seetaan. la preuve. bu koor yi koor gi jotee da ngay gis ni am nay télé yoo xam ni seen audience day gonflé parce que téléspectateur bi. internaute bi. auditeur bi ñoom ñoo koy imposer télévision yi. donc loolu moo tax ngay gis dañ leen di critiquer selon le choix des invités ou bien le discours de certains de de leurs invités. Mm-hmm. mais ñoom seen yoon xëy na du ci nekk wala dina ci nekk. mais audience bi moo leen di gën a préoccupé parce que xam nañ ni ci la ñuy retrouver ñoom li ñu soxla mais pour dire encore affaire audience ak euh, audimat mm-hmm. ku ci nekk fi nga tollu fa sa moroom di yem tu es à Dakar tu me parles de euh, d'audience que amuñu ko boo demoon à l'intérieur du pays tu verras que nit ñi nga ni à l'intérieur de RTS numéro ñëw national RTS numéro yow yaa ko wax donc xam nga kon mi noonu donc mais euh, ak nu mu ci demee c'est une bonne question c'est une question. c'est une question c'est une question. Mhm. moom nee na à l'intérieur. national national nous sommes numéro un. parce qu'on est obligé parce que ñooy couvrir Sénégal et c'est une télévision nationale. Mm-hmm. donc euh, c'est ça. mais amuñu concurrent <laughs> d'accord alors tey jii euh, sa avis d'expert bëggoon nañ ko am tamit ci jeune génération bi ak wàllum animation bi ñu gis ni affaire bi attiré na leen torop mais tey jii wàllu qualité ga Gathiaware est-ce que seetlu nga ko ci. xam nga man quand on parle d'animation et d'animateur mhm. j'ai souvent dit que il y a mille et une manières d'animer il y a mille façons d'animer toi tu me parlais de mon style d'animer mhm. tu verras également un autre animateur qui aura à lui aussi son style d'animer keneen am son keneen am son xam nga l'animation c'est comme une civilisation kenn du ko juger mhm. ku ci nekk ak ni nga koy comprendre am na animateur yoo xamee ni fii il faut qu'il danse pour nit ñi xam ni am na animateurs yoo xamee nii il faut qu'ils crient pour nit ñi xam ni ils existent am na ay animateurs yoo xam ni foog ñu reerloo nit ñi pour nit ñi xam leen am na animateurs yoo xamee ni feccuñu tëbuñu defuñu dara li nekk seen bopp la ñu use pour nit ñi xam leen. mi ngi dépendre nag ci ki koy consommer nan la leen di comprendre donc ñu ngi fii on a plein d' animateurs ku ci nekk ak ton style dama lay wax nag noonu nga leen gisee ku ci nekk am na ku lay seetaan. Mhm. yow est-ce que di leen déglu souvent bu fekkente ni am nga ci préférence koo xamante ni moom nga tàmmoo déglu pourquoi ce choix ak aussi tey jii est-ce que dans l'avenir wàllum animation fii ci Sénégal mën na gën a développer wu aussi nekk un secteur porteur. mën na gën a mën na gën a bari. léegi nag développement bi personnel lay doon quoi koo xamee ni bëgg nga ci vraiment am une carrière boo xam ni c'est une carrière époustouflante kooku yow yaa koy tongo euh, parce que loo gis lu ne borom moo koy parfaire. ci ku nekk ci ñun am na étoile. mais yow yaay xool noo koy nettoyer pour muy briller. donc euh, ñoom. ku ci bëgg a def carrière parce que tamit naa la wax c'est un métier boo xamee ni. Euh, ki lay imposer mi ngi ci biti. boo ko indisposé rek mu tegaat la foofu daal dafa lay imposé la mais bu gisee contraire bi rek daf lay teg fële malheur pour ñi ko jël def ko comme mode te am na ci ñoo xam ni dañ koy use actuellement comme mode te loo dégg ñu la mode la rek day démodé mais ñi ko def carrière jox ko respect bi ñu ko war a jox tegal ko déontologie tegal ko euh, xool fi mu war a jaar ñu koy jaarale ñu koy tegal également loo xam ne moom la ñu war lu ñu wax éthique moom la ñu war a def lu ñu war a jomb def ak lu ñu warul jomb te def. parce que soreetuñu ah dans un court délai ku ne dana mën a ku nekkay nekk animateur. maintenant nag ñi nga xam ne ñoo discipliné woon discipliné woon métier bi ñoo ñëw ci gën a génn parce que les télévisions dootuñu sax soxlay animateur parce que duñu gis animateur bu ñu liggéeyal. Mm-hmm. alors sous peu de temps animateur. xeet boobu day dootuloo ko gis. day disparaître du disparaître. Ah. dañuy du ñu am jot. comment ça. parce que jëlal sa téléphone portable avec les smartphones ou les Android. de euh, va sur les réseaux sociaux. va par exemple sur Facebook ou sur YouTube depuis chez toi tu peux faire un programme que tu vas euh, euh, échanger avec les internautes. Mm -hmm. et tu gagnes en retour quelque chose boo xamee ni xëy na sax mu lay gënal. j'ai vu un style bu commencé temps yi nga xamee ni gars yi lu ñuy def. le produit ils le mettent en arrière-plan. Mhm. taxaw ci kanam di animer euh, euh, le sponsor il paye. Mhm. donc euh, <laughs> pour te dire que ni. l'avancée de la technologie ku ci nekk mën nga nekk un animateur. Mhm. maintenant nag ñi ci gën a muus mooy ñi nga xamee ni dañ ko dañ ko jox ak xam ak xam nag jàppal ni lépp ngi ci respect baa ngi ci discipline bi professionnel professionnalisme baa ngi ci. d'accord Didier Prince Junior. votre fils il est animateur yaa ko ci pousse et. est-ce que tey jii am nga fierté di gis sa doom euh, mu jël même chemin que vous. alors euh, man musuma pousse Mouhamed pour mu def euh, métier hmm. je pense que gis nga dégg nga ko moom mu koy mu koy wax. Hmm. parce que Mohamed ñun on a voulu que mu jàng comme ay magam. Hmm. donc ay magam jàng nañu par la grâce de Dieu je touche du bois li ñu war a jàng. donc moom dañ ko imposer woon nit tamit. bu mu nekk ci niveau boo xamee ni daanaka demee daf koy porter préjudice surtout au milieu au sein de sa famille euh, mu bëggoon na dugg ci animation bi il faisait xaw ma troisième xaw ma second ñu ni ko def loolu donc euh, mu forcé forcé forcé ñu ni ko léegi li ñuy def mooy dangay am bac soo amee bac bi donc dinañ la permettre nga def métier bi. bon mu dem ci kàttanu yàlla par la grâce de Dieu mu dem indi bac bi. Mm-hmm. mun ma baa ngi nii ñu ni ko non euh, bac kese doyul donc demal nga indi li sa morom yi indi ci kër kër gi ba pare. Mm-hmm. parce que ñoom macha allah jàng nañu li ñu war a jàng. Mm-hmm. bon euh, mu accepté mu dem ci jàngi après son bac mu dem IAM IAM def na fa ba def na deux ans trois ans ensuite mu ñëw un jour mu ni moom lii la bëgg donc jànge bi xam na ni dina ko mës continuer un jour mm-hmm. j'étais pas d'accord mais comme tamit nit loo ko jur jur loo nekk way juróom way juróom am na benn foo xam ni su ngeen fa yeggee da war a taxaw nag parce que moom moo xam lu tax mu bëgg loolu moo tax xam lu tax mu bëgg def loolu mais man musuma d'accord xanaa xamoo ni Mouhamed magam moo ko gën a taxe téeméeri junni ci affaire u animation mais moom it bi mu ko bëggee dem na ba benn moment euh, année de licence am ci la comprendre que ni dafa war a continuer waaw donc kooku la Mohamed di wax ni man sama grand frère la fan mm-hmm. donc Mohamed je l'ai jamais encouragé à ce que mu devenir li mu nekk ba tey mu nekk ci donc euh, fier de Mohamed mm-hmm. dama koy ñaanal rek xam nga comme Abba comme keneen ak keneen keneen mm-hmm. dama ne di ñaanal parce que euh, ñoom ñëpp ay morom lañu. Euh, te ku ci nekk ci ñoom da génn ci kër dem di wuti dara donc fierté ñoom ñëpp ci ñoom la ñu koy am parce que ñun am na fu ñu yóbbu métier bi ñoom it am na feneen foo xam ne fa la ñu jëme métier bi. Mm-hmm. moom it ak ay moromam yëpp. Mm-hmm. donc fier de. très bien Mouhamed ñu koy souhaiter un bon vent. jamono yi mu ngi ci seetu bu metti on le fait aussi un coucou tey jii euh, DJ Prince on imagine que tam euh, vous devez être très pris hein, entre le travail les documents le bureau est-ce que du impacté ci sa private life ci sa vie privée tey jii est-ce que tu as du temps euh, à consacrer à la famille hmm, temps moom non ah oui oui temps moom boo parce que man moom dama lay tontu comme mu nekkee quoi mhm. parce que boo xëyee huit heures normalement au grand maximum neuf heures tu dois être au bureau. donc euh, boo paree ci rajo bii di Dakar FM da ngay dem enchaîner rajo Sénégal international RSI boo jógee rajo Sénégal international euh, RSI y a la télévision qui t'attend mm-hmm. donc euh, y a les programmes qui sont là da nga war a enregistrer pour jox les téléspectateurs li ñu war a seetaan le samedi. Mm-hmm. bu fekkee par exemple y a des grands événements. donc euh, da nga war a da war a euh, préparer wu. Mm-hmm. parce que pour jox également téléspectateurs yi li ñuy xaar ci yow. Mm-hmm. boo ñëwee sa kër avec les embouteillages donc tu arrives vingt heures vingt heures. Mm-hmm. donc tu as juste le temps de manger un truc bu ndaw naan ataaya man dama bëgg di naan ataaya ensuite tu vas au lit. le lendemain également. loolu laay noonu noonu noonu laay noonu laay def ak euh, noonu laay defaat. d'accord Tata Douka il te dit pas monsieur tu rentres trop tard euh, ça ne vous est jamais arrivé. non non non ah oui non non non non ah. non parce que euh, xam na métier bi yàgg na ci donc xam na xam na lu ñuy defee quoi. Mm-hmm. yàgg na ci waaw. d'accord alors quels sont les très grands projets de Didier Prince. les les grands projets mooy. Euh, dañu dénk déjà Dakar FM. il faut rebooster Dakar FM. il faut que nit ñi xam ni Dakar FM rajo mi ngi fi ba léegi. donc euh, man suma challenge mooy ñi xam ni Dakar mu ngi fi ba léegi donc euh, loolu rek doy na projet. Mhm. d'accord métier bu fun tamit boo xamante ni yaa mën nañ jàpp ni y a beaucoup de tentations est-ce que tey jii vous n'avez jamais été victime d'harcèlement de la part de la gente féminine. Euh, harcèlement je sais pas xawma lan ngay wooyee harcèlement parce que la femme sénégalaise. boo ko wanee nii bëgg nga ko mu bëgg la. Mhm. boo ko wanee ni tamit wan na la ni bëgg na la yow nga wan ko ni bëgguloo ko moom it mu wan la fulaam ak faydaam parce que euh, gàcc ngalaama ñoom femme parce que bokkuñu kon ñeneen ñi nga xamee ni dañu yomb et puis dañuy euh, dañ lay harceler noonu noonu noonu noonu. Mhm. boo gis au Sénégal. am na valeur bu nekk ci moom boo xamee ni du ko mës échanger. Mm-hmm. ba nga xamee du may dégg di am may animateurs yoo xam ni man dañ may harceler noonu kooku boo xoolee ba ci biir am na leneen beneen forme de bëgg xam nga bëgg parce que fan la ak bëgg parce que euh, bëgg bu intime la nit ñi dañ koy xaw a jaawale te du benn mm-hmm. mais la femme sénégalaise am na fulam ak faydam boo xamee ni pour mu harceler góor parce que lii ak lii foog mu yombul wala tamit barewul di ko gis am naa nag ay euh, relation ak ñoom mm-hmm. ay relation yoo xamee ni yu normal la mm-hmm. mais quant à harcèlement ak yu demee noonu. mais amuñu la mës a déggee DJ Prince dama neex dama bëggoon ñu voilà certaines propositions. non danga ma neex moom xam nga xam nga xam nga métier bi moom moom. loolu moom du ci ñàkk loolu moom vraiment. Mm-hmm. Euh, du ci ñàkk. mais quant à lële ak lële moom euh, xam nga ñaar ñu war a bëggante bëgg bu intime. Mm-hmm. bu ñu gisantee rek da xam ni ñii dañuy bëggante bëgg bu intime. Mm-hmm. lan ngay wax ñuy tontu ñu naan Dj Prince c'est un seen gis-gis xam nga àdduna. Euh, euh, mm, nit ku nekk ak ni muy gisee. Mm-hmm. nit ku nekk ak ni muy gisee. donc mënoon nañ mu wax lu gën a garaaw loolu. parce que euh, lu positif ñu koy teg ci li ngay def moo gën lu négatif ñu koy teg parce que moom nga wax ak kenn mu wax la leneen lu gën a graaw loolu mais comme loolu nga indi même bu loolu gënoon a graaw tamit mm-hmm. euh, métier bi ñu nekk la mm-hmm. métier bi ñu nekk la mais dinga nga dégg quatre vingt dix pour cent ñu la ku ñu yar la mm-hmm. comprendre donc xam nga loolu nga dégg mais chaque jour ma génnee ku may taseel dafa ma ne ku ñu yar nga xam ma ku la yar ku ñu yar nga donc euh, euh, sant yàlla ñooñu tamit euh, duma loolu nit bu nit bu normal la nit la boo xam nag dama am benn lu ma éduqué mm-hmm. mais bi nga dugg see donc ca tu compris que ni xëy na mës nga dégg loolu mais c'est tout à fait le contraire mm-hmm. donc loolu mooy àdduna il faut que nga toj yax bi pour nga mën a xam lan moo nekk ci biir mm-hmm. ñi naan da nga autant nag. non loolu mosuma ko dégg. non loolu moom mosuma ko dégg. xaw ma sax lu autant mooy. Mhm. parce que euh, foog nga éduquer foog nga am discussion yu bare non loolu sax mosuma ko dégg je l'ai jamais entendu. mosuma mhm. ko dégg d' accord mën nga ñëwaat ci sa relation ak Mbaye Dieye Faye. Mhm. une grande amitié. bëgg nañ ci xam quelques anecdotes. <laughs> non Mbaye mbay mbay c' est c' est mon artiste. mais c' mon ami. mbay euh, Mbaye est percussionniste musicien, il est musicien, moi je suis animateur, mais benn la ñu ci nit ki c'est-à-dire boo demee ci mbay Guèye loo koy laaj mu bañ saa ma yëg ko boo ñëwee laaj ma ko loolu nga may laaj ma bañ nga dem ci moom laaj ko lu muy nangu boo ma ko laajee boo ñëwee ci man moom nga may laaj ma nangu parce que Mbaye yàlla moo ñu boole donc euh, bi ñuy ànd léegi mat na lu toll ci ay vingt ans lu ëpp. mu suñu werante ci benn affaire man ak mbay Dièye. et yàlla def na on a sillonné le monde ensemble. mais loolu yëpp li ko lal mooy suñu base relation mu dëgër. c'est-à-dire on n'a jamais voulu bàyyi kenn mu dox suma diggante ak mbay Dièye Faye. dama lay raconter benn affaire bi ma jëlee mbay Dièye ñuy ànd di ànd di ànd après plusieurs années mu am clash digganteem ak Youssou Ndour mm-hmm. man musuma ci wax benn agent wu Youssou Ndour mës na ñëw ni ma mais grand gars yi de neenu ñu yow clash bi yaa nekk ci ginnaaw mm-hmm. ma ne kaa ah bon mun ma ma ne ko mais kon baax na euh, Youssou parce que mbay dama ko mës a wax ni ko duma sa manager diggante yow ak Super Étoile duma sa manager diggante yow ak 5-5 rythme mm-hmm. alors bi ñu demee ba nga xam ni nekk nañu ci jafe-jafe boo xamee nii mu ngi fii ñoom gis gis naa mbay Dieye ci même émission bi euh, mu ci dellu siwaat mm-hmm. donc bi ñu demee ba nga xam ni dañu war a gisee mm-hmm. avant loolu ma gisee ak Youssou ma ne ko grand man yow laay waxal dégg naa ñu ni man ma nekk sa diggante man ci ginnaaw sa problème ak mbay Dièye parce que c'est mon agent c'est mon artiste je son agent ak lii ak lii mm-hmm. mais dama lay xamal ne la Mbaye Dièye dama ko mës wax ni ko sama diggante sa diggante ak Youssou ak sa sa diggante ak 5-5 du ma manager bi mm-hmm. moom xam nga lu ma tontu dafa ni ma prince le chien Abwa et la caravane passe ñu dem ci ba ñu war a réconcilier war a gisewaat mbay Dièye ak Youssou Ndour mbay Dièye war a dellusiwaat siwaat ànd ak moom bi ñu demee ba war a toog sa patron yow Youssou Diop ak Youssou Ndour ak mbay Dièye man dañ ma woon pour ma ñëw toog dama leen wax ne seen ànd moo mag sama ànd ak mbay Dièye Faye donc jotaay boobu man awma fa place xam nga nit mën nga ko bañ a xam mais soo ko approché ci ngay xam bu baax kooku kan la donc mbay li ñu liyee dafa bari da nga ay anecdote ma lay génneel ci yenn ci yoo xamee ni moo gën a fës ci moom la sénégalais xam mm-hmm. donc sama xarit la sama artiste la mm-hmm. te léegi sax dootul diggante manager ak artiste parce que Mohamed bi am soxna bërki démb mm-hmm. soxna soosu mi ngi de départ ci euh, diggante Mame Ndiaye ak Mbaye Dièye Faye mm-hmm. donc ça veut dire dootul affaire wu xarit dootul affaire wu manager mais dañu dañu jaxasoo man ak moom léegi. Mm-hmm. d'accord Dj Prince est-ce que tey jii am nga ay regrets ci sa parcours professionnel. oui. Euh, mooy su ma xamoon ni nii lay mujjee. Euh, kon doon na pousser njàng mi mu sore sore sore sore sori lool. fu mu mujj. non euh, kon doon naa ko pousser daal mu gën a sori. Mhm. waaw. d'accord mhm. ce cursus sax. loolu euh, mhm. euh, ci mën a wax. Euh, vous l'avez passé comment. Ah, jàng comme li li dama mës a laaj benn benn américain ma ne ko yow ban classe nga yem fan nga ban kii mu ne moom li mu war a jàng li mu war a li mu war a liggéeyee ci àdduna loolu la jàng. xam ndax dégg li mu wax. ñaa li mu war a xam. moom loolu la jàng waaw américains yi ñooy wax loolu li ma war a xam moom laa jàng mm-hmm. waaw jàng naa comme ñëpp jàng naa comme ñëpp et puis jàng naa sax métier mm-hmm. c'est-à-dire j'ai mon métier mm-hmm. donc man institut privé de gestion IPG laa jàngee directeur mi ngi may déglu xam na baax li may wax mais bariwul ma koy boole ci suma suma sumay waxtaan foofu laa jàngee c'est samedi soir sa concept d'émission la waaw samedi soir euh, concept ñëpp la. concept ñëpp la et que euh, le nom benn nit moo ko génne. Mm-hmm. benn euh, réalisateur moo créé woon nom bi. Mm-hmm. moo ne woon nañ comme ça passe les samedis nañ ko tuddee samedi comme ça ne passe pas les après-midi ni le matin donc guddi gi lay jaar nañ ko ca tuddee soir c'était très simple. maanaam naa la wax benn wax. Mm-hmm. de loin tu vas me dire que nit yi grand boubou costume cravate kërëb kërëb. man tout ce que je fais dama bëgg mu simple lool comme ni nga ma gisee nii. Mm-hmm. waaw mais nag l'écran ou derrière les caméras ou devant la caméra dafa am leneen lu ñu lay laaj lu muy laaj. Mm-hmm. mais ni mu simple noonu ñu jël nom bi créé ko noonu man suma life noonu yëpp noonu lay noonu noonu la simple c'est une émission. Mm-hmm. bu ñu concevoir à l'intérieur en interne le nom. kenn tamit moo ko moo ko moo ko joxe. muy mm-hmm. nañ soir maintenant je pense que soir est devenu institution. Mm-hmm. donc euh, mu ngi noonu. d' accord mm-hmm. part le travail qu' est ce que vous aimez faire quels sont vos loisirs. à part le travail. Euh, part le travail moi j'aime je suis quelqu'un qui aime voyager. donc euh, su may Dakar damay bëgg nekk l'intérieur donc euh, les week j'aime voyager ensuite euh, comme ñii di la wax damay déglu musique wala damay kërëb kërëb man moom euh, su may toogee ñuy xim ataay ñuy naan di waxtaan. Mm-hmm. donc en euh, en famille. Mm-hmm. en famille bien sûr. d' mm-hmm. grand événement yi nga xamante ni yëpp mooy passé à la RTS ñu gis ni yaay nekk la vedette. yaa koy euh, yaa koy res comme ni xale di wax mhm. euh, pourquoi privilège boobu nga am ko ak primauté boobu. bon euh, je pense pas que ni privilège la déjà parce que. Euh, organisation la boo xam ne dañ koy def en interne et puis le directeur des programmes mu ni mhm. mu ni euh, diw moom mooy présenter spectacle bi parce que euh, grands événements RTS je pense que bi ma ko commencé def ak léegi xaw na yàgg quoi mhm. donc sénégalais yi nañ koy mais dañu benn journaliste dafa mës a laaj suñu directeur des programmes mu ne ko mais pourquoi chaque fois Prince mooy présenté grand événement yi mu ne ko c'est parce que c'est le plus sénégalais wala tamit bokk na ci ñi gën a sénégalais parce que quand tu le vois à la maison tu sens que ni kii man la li may def moom lay def nekkuma fi di ciib ciib wala di rouler air wala di kërëb kërëb genre demee noonu quoi ni mu ñëwee noonu lañ koy joxee mu daal di jeex. simplicité. mu daal di jeex. Mm-hmm. et que euh, bés la tamit yoo xamee ni li euh, ma lay wax rek il faut respecter ñi lay seetaan il faut nga xam noonu lañ koy joxe ak nan lañ koy jëlee c'est important. Mm-hmm. donc euh, xëy na ñoom yooyu lañ ci gis ba finalement événement yu jege si yu mel noonu. dañ may wax ni ma yow yaa koy présenter donc bi ma ko commencé présenter léegi ça fait vraiment plusieurs années. D'accord. c'était un plaisir xam naa dernier mot bi dañ lay bàyyi nga jox conseil gone yi nga xamante ni ñoo la bëgg sopp la bëgg a topp tamit say tànk. Mm-hmm. alors euh, métier le boo xamee ni en tout cas c'est un métier où gagne du plaisir et de l'argent mm-hmm. donc c'est le seul métier. vous en avez beaucoup de l'argent ça vous a enrichi. ben ça m'a permis xam nga xaalis moom du bare tant que yaa ngi ki faj say soxla rek. Mm-hmm. waaw mm-hmm. donc euh, gagner de l'argent ci vois de certains animateurs yoo xamee ni ñu ngi sant yàlla. Mm-hmm. ñu ko ci teg ci yoon wax dëgg yàlla boole laaj laajee dañuy wax ñu ngi sant yàlla. donc c'est un métier où on gagne du plaisir et de l'argent. alors euh, képp ko ko ciy def na xam ni yaa ngi def un métier boo xamee nii très cool. hein donc ñun euh, notre société c'est une société de séduction mm-hmm. donc euh, euh, il faut savoir donner li nga xam li nga am loo xamee ni bu ko téléspectateur bi gisee daf koy téye et que daf koy da koy sot c'est mm-hmm. important mm-hmm. il faut li ngay présenter mu am contenu c'est important mais il faut également le respect de l'autre dafa am solo mooy ki lay seetaan ki la bëgg souvent damay faral di wax ni am na ci ñoo xam ni dañuy jaawale euh, métier bi ils se prennent pour des gens yoo xam ne sax entre guillemets star la ñuy doon. Mm-hmm. parce que comprendre ñu soo comprendre da ngay fabriquer star. Mm-hmm. waaw sa mission mooy fabriquer star. mais boo bëggee dem ba toog ci place am finalement day indi confusion jaxase bopp yi nit ñi dootuñu xam. Mm-hmm. qui fait quoi ak qui doit faire quoi. donc euh, loolu la sinon euh, yal nañu yàlla defal jàmm. maa ngi remercier Sénégalais yi ils m'ont accompagné ci suma carrière ils mm. m'ont euh, cër biñ ma jox souvent su ma pose la question pourquoi mais dama leen koy delloo ñoom ñëpp mm-hmm. donc di ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla dolli ñu sutura donc euh, yàlla yokku ñu ay xewal Dakar FM bi ñu nekk donc euh, te ñu dégg tonton Prince Dakar FM lu ko suul lan moo tax déggatuñ ko du tout bon Dakar FM nag dégg xam nga maa ngi yow ci yemoon parce que Dakar FM moom. <laughs> Mhm. wax dëgg yàlla euh, euh, moo moo moo moo moo jox loxo. Mhm. tous les artistes sénégalais. waaw mhm. tous les artistes sénégalais. amul artiste bu jaarul fii Dakar FM. donc euh, xam nga nag rajo yi au pluriel moom foo ko dégg rek day am choix am ñoo xamee ni ñii ak ñii ak ñeneen fii la ñuy dem. mais rajo yi bi muy doon benn. donc Dakar FM moo fi nekkoon. Mm-hmm. léegi nag je tends la main aux artistes. donc euh, ñi nga xamee ni ils ont toujours aimé Dakar FM que ñu ñëwaat jàpp ci. Mm-hmm. xam nga ñëwaat ñu àndandoo ñu ñëpp ñu booster rajo bi mu dem ci kanam. Mm-hmm. donc yéen yéen it c'est vrai que ni am ngeen rajo mais du ñu ay concurrent <laughs> ah donc. Euh, jërë euh, merci en tout cas ça merci plaisir partagé beaucoup monsieur de, monsieur Wade Alioune Prince ñu gën ko xamee noona donc euh, c'était votre émission Rewmi People amis auditeurs dañuy dem ñëwaat coucou aux internautes de la chaîne Rewmi TV gros bisous aussi à nos confrères du quotidien Rewmi Mohamed Ba ak la consoeur bi la Red Chef Ba ak ki nga xamante ni mooy Anna mi nga xamante ni moo Village People bi coucou tamit à Modou pour les opérations liées à la caméra amis auditeurs merci et à la prochaine très bon week-end chez vous